ko ci santale boromam te ñaan tamit lépp loo xamante ni ñu ngi ko fiy def yàlla nañu ko nangul yàlla na doon liggéey yi nga xamante nii Sëriñ Tuubaa dana ko nangu daanaka kàddu yi ci ndigalu jëwriñ lañ ko jëlee ngir sant suñu mbokk taalibe yi nga xamante nii ñoo doon yëkkati xasida yi ndax kat lii nga xamante nii defal nañu ko ci jotaay bi ëpp nañu ndax ñun ñëpp xam nañ ni fañ jógee sori na te it yitte yi leen di xaar bari na ku ne gis na tamit dëkk bi ni mu mel ci déplacement yeeg yooyu xaw a jafe lool terewul ñu bàyyi seen i yitte ñëw fii ngir kóllëre gi ñu bokk ak ñoom ak sëriñ Touba yi nga xamante ni moo ñu boole ak kon duñ def lu dul sant leen bu baax a baax a baax tey ñaan Serigne bi nga xamante nii moo tax ñu jëf yàlla leen fay gën gi fay lépp loo xamante ne nii mbooloo mii di kuréel gi mi ngi koy mi ngi koy mi ngi koy yóotu yàlla nañ ci Serigne Touba gàttandu matale ko jàpp jàppandil ko bu baax a baax kuréel gi tamit fépp foo xamante ni mu ngi fay séentu wala ñu ngi ko fay séentu yàlla na yàlla na fa yàlla na egg fa kawee njort ñu ngi leen di santaat bu baax a baax a baax a baax ci turu jëwriñ ndax kat lii ngeen ñu defal kat dafa rëy xas di Sëñ Tuubaa yi amul dara lu ko gën a kawe su fekkee ni nag da ngeen dañ leen ci woo ngeen sawar ci loolu nag ñëw ànd kook ñun duñ def lu dul di leen sant bu baax di leen gërëm te leen bàyyi borom bi nga xamante ne nii moo ñu boole ci liggéey bi mu fay leen gën gi fay ñu ngi leen di santaat bu baax ñu ngi sàkku tamit balaa ngeen a yeweeku ngeen jàll ci kaw su ko defee mën a def yëfu njaayeen doo ko doo ko jàll kon xam naa dañuy jéem a daaneel foofu kàddu gi rek woo kuréel 1 bi su dee jàppandi nañ ñi ngi jégalu bu baax dañuy wax ni dañ doon sàkku kàddu yi ci jëwrin cuun su dee jàppandi rek mu ñëw yëkkati fi ay kàddu yoo xamante ni day jëmaat ci mbooloo bi ak soññ mbokk taalibe yi ñu ngi koy ñu ngi koy sàkku ci moom bismillah barki sëñ Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullah xanaa de wax dëgg yàlla kàddu yi moom eh, dañuy tàmbalee ziar suñu taalib yi rek di sofu su suñu jëwriñ daanalee wax dëgg yàlla mënoon naa ñàkk ndax moom daanaka mëte na te mbooloo yi suñu borom dogal na benn la waaw loolu moom suñu borom dogal na ñaari mbooloo yi daanaka benn la fu ñu mën a jógee itam war a ñëw fii yëkkati fa ay xasida defe naa jar naa def ay jéego yu bëree bëri bëri jëm si ay gos yu sorante mastama bu ñu wooyee fii nii nga xam ne wax dëgg yàlla ci njàngum xasida euh, bu bu ngeen newul ci kanam itam ñu leen roy wala ñu leen bàyyi xel bari na donc ñun itam day doon feex si ñun doon ay soññe ci gaa yi nga xam ne ñun ñoo àndandoo wax dëgg yàlla mbooloo mi sax gën naa yaatu nii waaye ni jamono demee ax ñi nga xam ne faw rek ñu koy nuñ koy dundalee fii lañ koy dundalee fay bari moo tax xool nañ ñi ñi nga xam ne ñëpp ci mbooloo bi ñëw nañ teew wax dëgg yàlla yéen mottali yéen yi nga xam ne yàgg nañ ko am dafa naa defoon nañ ko ay at yee weesu at yëpp bokkoon na si suñuy mbébét suñu borom sëriñ bi suturaal nañu defal ñu tawféex ba at bii ñu mën ko dundalaat yéene boobu ñu mën ko mottali di ñaan sëñ Tuubaa barki Cheikh barki xasideem yi barki màggal gi at bu jot ñu mën di ko def te mu gën a kaw a njort di ko àndandoo ba si kanamu sëriñ bi ndax defe naa dañoo bokk loo xam te ne mënuñu ko séddoo muy xaside yi yàlla koo ci gis rek day mel ni daanaka da ngeen a dëkk loolu nag moom cofeel googu defe naa xasida rek moo ko mën a def ci diggante ay murit sama gars yi itam ñoom wax dëgg yàlla di bu baax a baax ci Pastef bi euh, wax yàlla kàddu yi mën naa bañ a bëri daal moom mbooloo yi daanaka dafa di ñaari mbooloo yoo xam ne boo xoolee sëñ sëñ sëñ mafaal mi ak sëñ viére dañ ci doy seere ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam wax dëgg yàlla na ñoom ñu ngi déggante ci mbooloo te jëmm yi musuñu muñu musuñu gisee te yàlla dañu mel dañoo yàgg bokku lépp nag te lu bëree bëri naa nag moom wax dëgg yàlla bu dee sant ñun ñoo leen war a sant waaw ñu ngi leen sant bu baax a baax a baax ndax liggéey bi ñaan suñu borom yéen itam li ngeen ci bëgg def yéen ngeen ci am yàlla ngeen ci am lu kawe njort yàlla ngeen sëriñ bi gën a gàttandu gën leen a taxaw gën leen a dooleel gën a dëgëral mbooloo mi yéeneen ci am yëpp yàlla yàlla na ko sëriñ bi mottali lu kawe njort barki màggal gi waaw xam naa ne moom kàddu yi mën naa mën naa mën naa bañ a bari ndax moom ni mu demee la waaye comme mënut ñàkk faw rek ñu yitte yëkkati ko waaye wax dëgg yàlla moom lu ñu ko mën a tënkee rek mooy ñaari mbooloo yi benn la fu ngeen ñu woo dañ ciy sawar jaroon sax bu ngeen jàppoon bis jàppoon bis sax bu ngeen jàppoon sax eh, yitte gi ndax bàyyi xel gi ñuy bàyyi xel liggéey bi dana jaral gaa yi ñu jóge fañ ne ñëw waxatuma laal lu day ni màggal Sëñ Tuubaa waxatuma laal diggante bii ñu xam ne kenn ku ne ku yëngu ci wàllu xasida xam nga guddi guddi màggal fi mu toll ci mbooloo yi donc buñ la ci woowee tam kon ku la fonk rek moo la mën a def loolu waaw kon di santaat bu baax a baax yàlla na sëriñ bi gën a boot yàlla na sëriñ bi gën a taxaw yàlla na sëriñ bi gën a gàttanu yàlla na sëriñ bi féete fépp barke xaside yi waaw ñu ngi santaat bu baax a baax liggéey bi sell na te wax dëgg yàlla ay ay royukaay ngeen ci daal waaw ñu ngi tubaat bu baax a baax di wàcce suñu kàddu foofu salaamu wa rahmatullah jërë ngeen jëf cant gi ngeen di ni la war ndax <laughs> yitte gi nga rek ci yéen lay jógewaat di ñëw ci ñun waaye li ñu waxoon ci suñu njëlbeen wax rek loolu lañuy ñuy waxaat muy yàlla leen sëriñ bi nga xamante nii moo tax ngeen di jëf leen fay ngën gi fay te kóllëre gi tamit yàlla nañu ko sàmmal ba nga xamante ne nii dana law lool yàgg ba dem ba suñuy sët wala suñuy raq di ko taxaw kon ñu ngi leen di santaat bu baax a baax tey ñaan tamit sëriñ bi gën a ñàkk mbooloo mi gën koo dëgëral fépp fu ngeen koy sént yàlla na kawe njott lool lool barki borom Tuubaa ñu ngi jégaluwaat bu baax a baax kuréel bi kon suñ jàppandee rek mën nañoo jege si.